aw man ndax liñ doon liñ li li liñ liñ ñu woo Sénégal Sénégal yi génn fekk leen ci ci loolu la ñu nekk ak ñoom ba tey xam nga man seet naa leen man wax añuma ci réeruma ci hmm. man sama compte TikTok xawma ñaata vues la am ba yow ma xam maanaam ci jamono jii xamaguma li ne sama kanam de waaye ci jamono jii doo génn doo doo dégg benn yoon bu saa tuubaa naan aboneel santuma kenn ma abonné soxluma kenn ko abonné utuma ay abonné utuma ay vie xaw ma sama compte kañ laa gëj a dugal kañ laa gëj a dugal vidéo xaw ma ko. Hmm. wax añu ma ci wax añu ma ci réeru ma ci li may xëy di ko ñaq ci laay suturlu. Hmm. utuma ay vie pour dara. waxuma wax ju neex pour nit ñi di abonné ci man soxlawuma ko. mais li ma soxla mooy président Ousmane Sonko moom moo ci moo Sénégal yi woo ñu ci gëm naa ne wàccagu ko nag waaye dañ cee yeex dañ cee yeex trop te yéen a gi bëgg a may ñii lu ñu wax li Papa Papa Alé wax dafa leer man mënu maa nangu ñu ngi tuddul ay rapport rek mel ne ay cote la bu dee cote la ngeen décoté ko wax ko Sénégalais yi ndax yéen a may ñii ñuy toog ci plateau télé yi. di di di di di waxantu ay wax léegi plateau télé doyatu leen léegi ña ngay dem ca seen seen termonage ba di di di wax te yéen a leen ko may man fi rek laa gis ku ne sàcc na wala ñu ne ñu ne sàcc nañ ñu takk ñu dakk rajo ci dëkk bi di lambar lambari te booy bu fi sàcc cinquante mille ngeen jàpp ko yóbbu ci kaso bi wala léegi politicien bu sàccee wala ñu jiñ ko dara wala mu amul droit ngeen woo ko ci kii jur ne fi di di man ay na nañ koo xaarat di dossier yi day day dina gaaw ak yooyu di ko yeexal ab tànk da koy banque wala nga taalal ko li ma gën a métti mooy bay bayal ngeen leen bañ commencé di sax ay karaw yooyu bopp fi nii ah te heure bi war naa fekk te Ousmane euh, président ko sama xol ci politique yaa ci nekk am ma keneen ku may topp ku dul yow ndax maa ngi doog a bëgg ab politicien muy sa jëm waaye maanaam virage bi dernier virage bii li ma daan wax ca jamono yi euh, maanaam euh, parrainage bi ñuy laajee ka bi ñuy laajee bi ñuy laajee suñ suñ suñ parrainage ñu bañ. may wax ak Sénégal ne leen yéen a ngi seen dernier virage yéen ñi nekk Côte d'Ivoire ñu yóbbu leen ngeen nekk Côte d'Ivoire lambar lambar yi ngir bañ a jëli seen i carte jafe-jafe ba ngeen dundoon bu ngeen jógee Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ñëw seen kër baay di ngeen ko fa fekkaat mooy dama ne loon dernier virage ngeen nekk waaye yéen seen premier virage bi bu ngeen ko ratee sëñ Fallou Mbacke xam na ne boobu ngeen seet fu ngeen jaar premier virage bi moom bu ngeen ko ratee tama ëppale ni buum ndax bu boobaa discours yi Ousmane Sonko ngay télécharger rek maanaam teg ko ci rajo yeeg télé yi Ousmane di Ousmane Sonko di di opposé wu bopp moom mooy opposé boppam moom moom moom mooy opposé boppam parce que li gën a mooy bokk na ci 94 Mamour Diallo yi li ëpp ci Sénégalais yi ci loolu lañ ne ah am nañ politicien boo xam ne ñeme naa déclaré ne am nañu dénk suñu réew mi ñuy sàcc alal réew mi Sénégalais yi commencé xippeeku di xool seen i bët Ousmane Sonko di ko bàyyi xel mu continue ci loolu di dénoncé di dénoncé li nga xam ne scandale yu xew ci réew mu nekkoon employé domaine xamal Sénégal ne am na ay njublan yu nekk ci biir dëkk bii wax fii ne am na ci ñoo ko fenn yoon ñu gis na jaay doole ki ñu ko jaay doole ñu ngi ko jaay doole Sénégal yi génn soutenir ko ci loolu kon bu ngeen demee ba ci bopp bu ngeen demee ba ci bopp réew mi suñu borom dogal yéenay buum yéenay buum mi bu ngeen fi nekkee nan da ngeen lem-lemi ne fi naan ay nan xaar ba ci kanam gis nga sa wuj maanaam gis nga sa sa sa maanaam maanaam maanaam sa sa sa doomu nday doo ko joxe yar na ko dóoral bu dóoree dóoree doo sas mooy ñi fi nekk nii ci wàllum justice ñoo ñi fi nekkoon comme li sëñ Cheikh ñoo fi bokkoon nekk liñ fi def ñoom ñoo ko defandoo buñ ko tegee ba ci yoon sax ay ñoom candeel ak borom bopp yu ngand yooyu yëpp dina rendre compte ndax liñ xañoon sénégalais yi mooy Ousmane Sonko doon ab candidat te teguñu ko fenn bëggoon lu neex gouvernement bi fi nekkoon ak bëggoon ko écarté moo taxoon lii am bëggoon ko écarté moo taxoon kenn xewoo ci problème Mame Mbaye Niang sénégalais yi génn nañ bàyyi leen ki ngeen jaay doole ay bakkan di ca ay bakkan di ca des man li ma bëgg mooy ñu ngi lay wax déclaration politique générale boobu ngay wax ñu di la ko wax naa man dama ne man saa Touba dem ca te ko xaar boo cay dem nag rapport yi fi nekk nii xam nga a APR ñoom xamuñu fu xamuñu taxaw ñàkk xam seen bopp moo tax ñuy gën naan nañ dem assemblée nationale waaye Ousmane Sonko tamit xamal sa bopp xam ko toll ni booy dem rapport yi jëlaale ko ndax jour boobu li ëpp àdduna bépp dañuy toog di la déglu ndax àdduna bépp yàkkaar tamit Ousmane Sonko wax fan la jëme réew mi waaye bala nga ñu wax fi ñu jëmee jëlee ba nga ma jëlee man maanaam fa ma jëmee bala nga ma ko wax da nga may wax fi ñu ma jëlee ku ciy tukki Europe oto da ngay dem ca gaz ba nga taxaw fa xaar bu say bagage réer ñu ne ban arrêt nga duggee woon kon dina nga ñu wax fu ngeen ñu jëlee da ngeen ñu wax fi ngeen ñu jëlee fu ngeen ñu jëmee man naataanga laa fay séntu waaye fi ngeen ñu jëlee ay bakkan moo fi rab seen njaboot ba léegi nuppeegunu mhm. leeral lool bu ci benn rapport xotte ko ñab ñabal leen ko taf ko kol ko nga dem assemblée nationale taxaw bala naan fii laa leen jëmee nga ne ne leen diw mii moom lañ dénk ko nangam moo sàcc nangam mu ngi tudd nangam sant nangam diw mii commencé ko ca kaw ba ci suuf waaye mën ngeen une semaine bu nekk wala boog 15 jours 20 jours yu nekk ngeen génn ay scandale mais scandale yu yu yu ngeen leeralul ban njariñ la am scandale bu ngeen leeralul ban njariñ la am bu ngeen kan ngeen fi commencé woon génn aaya ba nga commencé aaya ak léegi kañ la depuis ñaata ñaata weer nii ñetti weer ñu ñu jëm ñetti weer maanaam lan aaya yi di wàcc mel ni maanaam rapport yi wàcc mel ni aaya aaya yu njëkk yi ba léegi leeraloon ko nit ñi boobaat léegi ñu naan ay lonaas génnaat na man li lonaas génne sama yoon nekku ci lonaas parce que am na yu fi nekk yoo xam ne léeraluñ ma ko man boo ma léeralut lii boo demee ba ca kanam di ma wax la ci kanam du leen ñoom bu ñu amee fulaay sàcc ci dëkk bii yéen ngeen nekk fi di xullee ko ñoom ba am ay temps de parole ci ay antenne di toog wax yéen a leen ko may te wóor na sëñ Fallou Mbacké bu ngeen bu ngeen bu ngeen ratee première occasion bii ngeen am ak Sénégalais yi mooy danaaw si yi ba Sénégalais yi i wax yi démb donc liñ jël di leen ko tegal ndax ay ci loolu ne dekk ñun am nañ a na yore suñu réew waaye gars yi taxaw di lemm lemm di rapport yi di rapport yi di jël temps temps bu métti bi ngeen jël ngeen di bàyyi hmm. at tànk da nga koy banque wala nga tàllal ko facture courant bu ñu ko andilee mënut a xaar sa soxna bu feebaree dem hôpital mënul xaar ndox mi sa biir kër gars yi mënuñu ko génne mënul xaar da ngay génn bàyyi fa xaar waaye bi na tàkk sama xol bi jeex na a néew ci xeex bi ñu rapport yi ngeen di yeexam talu ba gars yi commencé lemme lam ci plateau télé yi heure bi war naa fekk kenn ku ne sa jabar la léegul añ mën ngeen sàcc ba far ne ci dëkk bii Sénégal doon fi gor moo koo ci wax ma naan gor laa doomi gor laa rus naa koo def te bu dee loolu ay kañaay gor lañu waxtu nekk ngeen jël bëgg gàccaal ngeen wax ma ko ndax man li ngeen ma woon ci laa leen fekk si woon sama discours musuma ko sensé ñëpp jàpp nañu Sa Touba dañ ko jàpp yóbbu ko ci kaso bi kon bu ngeen ñëw ba ci cappaandaw gi ngeen war ñoo leeral ne fi di lemm lemm lemm lemmal ngeen si ni ngeen di baax baax lu ko dugal seen bopp ci ngeen xamul seen baax baax lu ko ngeen di bàyyi ay joomaay daa yaroog Ousmane Sonko nangam ñun ay yaroog yooyu yëpp baax na waaye li ñu gën a soxla mooy li réer ci dëkk bii ay bakkan yu rot seen njaboot di ko jooy xamaguñ bakkan yi fan kan moo leen rey aram yi ñu fi jëloon kin fukk bu nu yàq ci nekkoon bëgg na mes leeral ko Sénégalais bu ngeen fi nee di lapp-lapp ba ba mbir mi naa saay barke sëñ Fallou Mbacke xaw ma ku ngeen fu mu ngeen di jaarati waaye wóor na sëñ Fallou Mbacke di sax duma ko dootuma ko woote di di di di leen taabal nga ne nga lànk rapport boo xagoo ci dugal leen ci rapport bi Mamour Diallo ñaata nga naan war Mamour Diallo Mamour Diallo ba léegi leeralu leen nit ñi ba léegi ñu ngi ne ci plateau télé di lambar lambari bëgg dee ma ñaan waa xam ne moo gën a reer ci lu yàlla bind ngeen bàyyi ko muy lemm leen Antoine Diome taxaw menace Sénégal yëpp ay ma Ndiaye moom moo la woolu woon nga yor immunité parlementaire nekk yi génn du dem ñu jaay la doole Sénégal yi génn duñ la jaay doole ngeen téye rapport yi too taxaw di xaar lu ngeen di xaar bal bu nekkee say tànk paasal wala nga dugal boo paasul dugaloo nga seet feneen foo jëm jërëjëf waay jërëjëf ah, sama xol bi jeex euh, jaajëfal ko bu baax saa Touba 77 914 64 93 si ngeen jaar ngir mën a bokk ci euh, waxtaan bile euh, ñu continuer ànd ak yéen ci li gën fees ci actualité fii ci réewum Sénégal bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël salaamaaleykum. ne nuyu salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi nuyu di leen ziar. ñu lay fay bu baax sañ bi. te nuyu sama naataangoo ki ma topp mooy Sadio sa sa Touba. Hmm. dëgg bi mu weex daal man tamit loolu la man patriote la cent pour cent hmm. ne nañu xeex bàyyi suñu lépp ba kii mais fi mu nii man du ma joxoñ kenn ku dul président Bassirou Diomaye Faye hmm. parce que soo gisee waa APR ñaawteef bi ñu def ci réew mi di tàcc nit ñi di rey nit ba li ñu def lépp bakkani root li ñu kiyee même bu dee bu bokk ci am amnistie loolu yàkkamtiwuñu ko hmm. bu ñu demee assemblée ba ñu jël assemblée bu dee loi bi ñu génnee ko la loolu mën nañ ko comprendre mais loo xam ne moom détournement amul kenn koo xam ne moom am na ndoom mu ndoomal tànk ci APR sàccul amul benn militaire même direction yi waaw léegi ba Bassirou Diomaye Faye ban diplomatie lay day doxal ba léegi même bu ñu leen toppul sax affaire bi Sénégal yëpp a actuellement yëpp a mer ñu naan affaire bi dafa yéex mais bu dee commencé wu ñu leen pour woo leen mais nañu génnee femme ci kii bi li ñuy def képp ku ne ñu rapport yi nañ ko génnee publiquement sénégalais xam sénégalais ñu ngi ci woon kumpa ba léegi mais lu tax ñu nëbbul ay rapport su boobaa ñu di leen tëj seen lan nañuy bon yi mais démb démb bi ma déggee Abdoulaye Seydou Sow billaay dama bëgg a jooy dama mer li ma xeexoon démb. dama mer ñoo xam ne moom seen doom yi dañoo dee am na ñoo xam ne moom ba léegi ñu ngi naagu ba léegi ñu kii am na ñoo xam ne seen famille dañu tas léegi donc am na de sow ba ma dégg muy di encore di tuumal Sonko naan waaw kii lañ ko tëj sàcc portable lañ ko tëj moom corruption de de de de mineur lañ ko tëj mais imagine toi kooku est-ce que loolu am na jot. mais dafa mel ni comme Diomaye Diomaye léegi nañu nañu nañu éliminer ministre yi na jël waa APR mu liggéey ak ñoom bu dee nii lay continuer. Mhm. mais nañu ba léegi loo xam ne moom loolu bokkul ci ci am amnistie mooy rapport yi ñi ñuy sàcc li ñuy luubal mais nañ leen di topp su leen toppul comme ça ñu jox sénégalais ñu ne ñun gouvernement bi lii lañ fi fekk lii la ñu def. jëlee lii lañ jëm lii la ñuy sàcc sénégalais yëpp xam ko comme ça su boobaa ñoom bu ñu génnee ci plateau yi peuple bi da leen leen arrêté da leen leen wax yéen seen kii bi da ngeen dem leen réglé loolu mais kenn ñëppay nekk ci kumpa ñi ndax Macky la dañoo sàcc wala sàccu ñun gouvernement bi ndax li ñu yàkk kenn xamu ko ñoom ñu ngi yore ay rapport di ko nëbbu pourquoi di doxal diplomatie da ngay doxal diplomatie koo xam ne moom nit ku diplomate la mais ñii c'est des assassins c'est des mesquins c'est des escrocs ñoo xam ne moom dañoo sàcc alal yàq Sénégal rey nañu ci kaw loolu ba léegi ñoom ñooy continuer di di xoqatal Sénégalais yi ñoom ñu ne pat mel ni gouvernement parce que wala parce que yoru nguur gi. d'accord. mais ñoo yor lépp. Hmm, jërëjëf. mais loolu Sénégal yëpp ko wax actuellement nañ génnee rapport bi ñu wan ko Sénégalais yi ñu wax Sénégalais yi ñii li def. su boobaa bu dee parewuñu pour topp leen mais nañu wax sénégalais peuple moom moom am moom moom suñu alal ñoo moo ñoo leen jiite ñoo moom suñu réew mi donc ñoom li ñu fekkee ji yàq-yàq bi ñu nekku rapport yaa ngi fees foofu del a chaque fois ñu naan rapport dix soixante dix rapport quatre vingt dix rapport mais peuple ku moom ku moom alalam mais nañ leen di jox compte li papa Alé wax man d'accord ak moom mais lan la ñuy xaar di publier ay rapport di informer Sénégalais ñi naan waa APR ñi fi jógee nii la ñuy def. d'accord su boobaa ñoom kañ la li ñuy topp mais quand même pour ñun ñun peuple bi nañ leen arrêté ci plateau yi. d'accord mais doo arrêté koo xam ne moom dañ ko tuumal xamoo loo def xamul lu muy def ñoom ñu ngi ne pat ci rapport yi. wala hmm. ñu publier ko. ñu ñu jot wala dafa mel ni gouvernement bi amul porte-parole. d'accord ñu def conférence de presse ñu jël les dossiers yëpp ñu teg ko ne sénégalais yi ñu nii nii la ñu fekk ci réew mi nii yàq-yàq bii la mais dinañ leen topp su boobaa sénégalais yi am xel bu daw dal mais actuellement kenn xelam dalul président Diomaye Faye bàyyi sa noppi yi noppi noppi bi ngay def nii loolu taxul réew mi ñu jox la ko pour ñu waxante dëgg noppi noppi yi dafay yàgg sénégalais dañoo mer dañoo sonn d'accord actuellement coono bi ñu pe coono bi ñu bi ñu amul ci jën nguur gi de xeex bu ne manifestation mais au moins que bu ñu jëlee nguur gi coono boobu war nañ ci continuer au ci coobare suñu suñu président bi d'accord dafa métti quoi franchement bi mais bu ma déggee c'est Abdoulaye Seydou Sow est-ce que c'est Abdoulaye Seydou bu réew bu normal bu Abdoulaye Seydou Sow war na génnee war wax ay wax yu ñàkk fayda yi te mu def ay ñaawte ba léegi mel ni ñoom sa jël nguur ou bien bu dee accord dafa am accord bi ñuy def ak ñoom ñu waxante dëgg nañu wax nañu wax mais généralement ba léegi ñoom ñoom ñoom ñooy gondi ñoom ñoo nekk ci plateau bi jël plateau yëpp. d'accord. mais dafa métti. dañu hmm. génnee rapport yi wan wan ko Sénégalais lii lañ fekk ci réew mi. d'accord merci ñu daal di koy jaajëfal bu baax a baax ci euh, kàddu yi euh, Amina mel ni waxtu bi daal nañu dàpp ñu bàyyi la nga daal di euh, tàggoo ak mbokku internet yi. ma daal di waaw jéggalu bu ko defee may may remercier Badara bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ni àndoon nañ ko ci di jaajëfal ñi nga xamante ni